yoon yi nekkee fii ci Wakam dañu koy daal di xàlli ci surveillance suuf mairie bi ki ko jiite yore lépp lu jëm ci wàllu tali yi bile xalaat bàyyeekoo ci municipalité bi ak i bànkaasam dina may ñu gën a fexe ba marché bi gën a nooyi waaye tamit fexe ba dem beeg dikk bi gën a yomb waaye tamit may nit ñi ñu mën a jaar ci trottoir yi. benn arrêté lañ génnee tout récemment yàggul pour wan ne waa Wakam que ne croisement Wakam du arrêt Jakarta. du bëgguñu bëggatuñ kenn def ko arrêt Jakarta parce que dañu seetlu leen fan yëpp que ne dafa may agression yu am ci biir Wakam te ci niveau croisement Wakam la amee jigéen ñi dañuy wàcc guddi ñi këf seeni i saak këf seen i seen seen i bagage ak lu mu mënti doon te borom Jakarta maan ñi koy def ñi si bëri dëkkuñu Wakam. ñetti ayu bés rek la def fii ci Sénégal mu ngi bàyyeekoo ci Guinée Conakry moom tamit bokk na ci ñu ñëw jël ci seen moto. devenu euh, garé là-bas. waaw tey jii moom sama bés bu njëkk may liggéey ci euh, rond point Wakam bi dama nekkoon rek doon stationné waaye tamit euh, ci laa gisee benn daamar bu weex daal di garé daal di embarqué ay moto yu bëree bëri. a à côté de mois ils ont attrapé notre motard. moo ne bu ñu leen jëlee fii bëgg nañu leen yóbbu ci ab site de recasement waaye ñoom jakartamaan yi lu ni mel dalul seen xel. croisement boobu la ñu am bu ñu bu ñu fa mënoon bàyyil benn place espace bu ndaw sax ñu ne càcc gi taxaw leen fii terrain naar yow tamit bu ñu fa yóbboo tamit du ñu arrangé wax fa yàlla terrain bu ñu fa yóbboo duñ gis client. ñoom ñii ñu nangu seeni moto nag arrêté bi teg na leen ay daan ak benn amende boo xam ne mën na dooree ci junni jàpp ñaari junni bile opération dinañu ko amal fan yu néew waaye bile yoon clando yiy daw Wakam Ngor la fiy jëlee.